sa démb xam sa tey xam sa démb xam xam sa démb xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru senegal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey a ñuy waxtaanee kilifa waxtaane doomu réew mu jar a sago di waxtaane ku jar jara tiitaroo di waxtaanee royuwaay royukaay di waxtaanee ku jëfam mag di waxtaanee ku ñëpp bokk mu bootoon ñëpp te beddiwut kenn ñu waxtaanee ku defar askan yi defar diine yi déggoob diine yi xam sa démb xam sa tey di waxtaanee cardinal Hyacinthe Thiandoum dafa am nit ñooñ seen jë fanu jëm dafay rëy rëy goog des ko war a nettali mu am ñooñ seen jaar-jaar màgg na màgg goo xam ne ku ko dégg danga leen wekk te yokk sa ngëm may la fit dafa am nit ñooñ boo xoolee seen xar kanam ci biir réew mi dañuy ñoñ seen jaar-jaar dañ ko war a nettali gone yi tey ak ëllëg ba kenn ku ne ci ñoom xam nooy dëkkee ci sa biir askan ba kenn ku ne ci ñoom xam nooy matee ma xejj xam li war ci sa biir réew ñooña nit dañuy am jaar-jaar boo xam ne du am gàkk-gàkk ñooñe nit seen nataalu jaar-jaar dafay weex tàll ñooñe nit dañuy bokk ca ñi nga xam ne dañuy tabax seenum réew muy réewum jàmm kii di cardinal Hyacinthe Thiandoum gàcce ngaalaama ca nit ñooñu la bokk kooku nag bay leen ma ma nettali leen ko moom ya seen Thiandoum may leen ma rek ñu foddat kooraay ngir doom jooju nga xam ne ma nga juddoo ca région Thiès may leen ma ñu foddat kooraay ci doom jooju nga xam ne ma nga juddoo ca Popenguine mu sell ma may leen ma nopp may leen ma nopp man gémmiñu l'Afrique ma wax ak yéen ngir samay balafon benn bu ci ma jiiñ ko ci màggaayu doomu senegal boobu di Yacine candum Gorsa Yacine Thiandoum ca fitwa Yacine candum ca sell ga ca ngëm Yacine Thiandoum ca maandu ga kooku la ñuy nettali tey ana fu mu juddoo fu mu ganee adduna mi ngi ganee adduna ca Popenguine mu sell ma gane adduna bisub ñaari fan ci weeru février ci atum 1921 ca région boobu ñu tuddee woon région Thiès ana fu mu jàngee ñu ne boo ko bëggee xam dangay ngay dem Gazobile ca mission catholique ba foofa nag la jànge waaye kañ lañ ko def prêtre ña ngi ko ko def 18 avril 1949 ana ko ko ko def xanaa monseigneur Marcel Lefebvre nga xam ne booba moo doon archevêque gu Dakar. may leen ma nopp ma waxtaanee nit ku màgg may leen ma nopp ma waxtaanee cardinal Hyacinthe Thiandoum xam sa démb xam sa tey moom de mën nañoo jàpp sax ne ki nga xam ne moo ko tegoon def ko prêtre muy monseigneur Marcel Lefebvre moom ci boppam. moo ko wuutu ci diocèse Ndakaaru ñaar fukki fan ak ñeent ci février ci atum 1962 booba Sénégal moom na boppam jotaat na boppam booba Sénégal doon na réewum boppam tàggoo na sax ak Mali waaye nag kan kañ lañ ko def li nga xam ne mooy cër bu mag bi nanu dellu kon ñaar fukki fan ci weeru mai 1962 Yacine Thiandoum doon sénégalais bi njëkk bi nga xam ne def nañ ko archevêque ci Sénégal loola di woon lu màgg ci réew mi di woon cër bu rëy ci réew mi kooku di Yacine Thiandoum mu mag ma ana lu ko yëkkati woon mooy rek fexe ba jàngu bi biir Sénégal doon jàngu bopp dana wekk aada ak cosaanu Sénégal waaye dana wekku ci li nga xam ne yontu yàlla Insa mu sell ma yal na yàlla yokk leeram moom ci boppam moom la digle woon looloo tax cardinal Hyacinthe Thiandoum ne xar tànk tubéy rek ba làkki réew mi képp koo xam ne da ngay waaraate ci biir jàngu bi danga koy jëfandikoo ci loo xam ne amu fi woon ci jamonoy nasaraan yi ngeen bàyyi ma may ma ma nettali jaar-jaaru Hyacinthe Thiandoum ngeen foddat seeni koora ngir doomu Cees foddat seen koora ci ki gane àdduna ca Popenguine mu sell ma ngeen may ma nopp man mi gémmiñu Afrique ba foddat samay balafong tëgg leen jiin leen ngir doomu Sénégal bu mag bi nga xam ne mat na royuwaay di cardinal Hyacinthe Thiandoum ca fitwa ca ngëm ga ca ngor ga ca maandu ga Hyacinthe Thiandoum la ñuy waxtaanee ana ko def cardinal kooka ma nga tudd Paul VI ana kan kañ la ko ko def ma ngi ko ko def ca ndaje mu mag mooma di consistoire amoon ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai ci 1976 boole ko nag ak ndombal tànk bii di cardinal prêtre jëm ci Santa Maria del Popolo nga xam ne moom dafay am fu mu bokk am nu muy doxalee ca ndombal googu ñu ko jox nag cala la bokk ñetti yoon ci ñi war a fal paap yi nga xam ne ñoo jiitu jàng adduna ya te moom Rome Paul IV Jean Paul premier ak Jean Paul II kenn ku ci ne bañ lay teg ca kaw ngàngunaay googa cardinal Hyacinthe Thiandoum bokk na ca ña la fal waaye nag ay cëram bëri woon lool ku koy lim doo fi jóg ndax li duuf ci nag wi yëpp dafa xajandoowut ci cin li ñu mën cee jàpp rek ne moom de symposium bi nga xam ne conférence bi dajale kilifay jàngu yi ci Afrique ak Madagascar ñu tuddee ko conférence épiscopale yi mag yi moom de nekkoon na ki topp ci président bi di vis président bi waaye nag assemblée bi nga xam ne assemblée bu spéciale la nga xam ne mooy assemblée bi dajale synode yu évêque yépp ci Afrique nekkoon na rapporteur général ba yoroon lépp loo xam ne dañ ko fay wax ki koy tënk mu yoroon tënk ga nanu dellu si nanu dellu si ci février 1992 19 février muy fukki fan ak juróom-ñeent ba 23 février di ñaar fukki fan ak ñett ngan gu rëy ga ngan ga Pape Jean Paul II gane si woon Ndakaaru cardinal Hyacinthe Thiandoum dayoon na ndam ci doomi Sénégal soosu nga xam ne loola kenn mus ko woon a gis réew moo xam ne ñëpp ay jullit lañ ki jiita jàngub àdduna bi tànn sam réew ñëw nga ànd ak sa réew amut xaaj ji amut seen jullit katolik catholique ñëpp ànd protestant catholique ñëpp ànd ñëpp ànd tertul ko ko waaye keroog stade Demba Diop nit bëgg na faa dugg mënu faa dugg ndax teraanga ak teral gi nga xam ne defal nañ ko pape Jean waaye ñëw boobu Saint-Père bi nga xam ne ñëwoon na ko fii di pape Jean Paul II danoo wane ne réewum Sénégal réewum jàmmoo la ci diine mu saxal ko nag dëggal ko ndax li am ba am mooy cardinal Thiandoum moom dafa yamut woon rek ci wax ci làmmiñam ne jullit yi ak waa jàngu bi danoo war a ànd ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp dañuy julli ci benn yàlla bi ñoom ñëpp ànd gëm ne yonent yàlla Isa yonent la moom nag mu ko doon dund di ko dundal loolu moo tax képp ku fi doon sëriñ mbaa ngay xalif général nit ñi xam nañ ko cardinal Thiandoum dafa séqoon nag yow jàmm di woo ñenn ñi di leen prier bu fekkente ne siyaare bu mag bi ñuy siyaare ca Popenguine am na ñuy dem ca waajuru ku sell ki soxna Mariama mi nga xam ne moo meññ yont yàlla insa bu ñuy dem danaan wooj ñëpp jullit ak ku dëkk ci réew mi nga ñëw màggal bis booba di waxtaane tey cardinal Hyacinthe Thiandoum ngeen may ma rek ma waxtaanee ko ngeen foddat kooraa yi ndax doomi Cees ji foddat kooraa yi ndax doomi Popenguine ji jàngee Ngazobil kooka nag dafa am lu rëy lum def te loola moo wane ne diirub lim fi ne kenn mësu koo diingat kenn mësu koo joxoñ kenn mësu koo sikkal ñett yoon nee na kilifa jàngu ba nekk Rome ñett yoon nee na ko mu yeewi ko kooku di ko tànqamlu ba ca ñeenteel ba mu ko ko mujjee laaj ca 1998 pape bi daf ne ko yow de sag wàcc ci cardinal dañ koy delloo rek borom bi nga xam ne mooy dogal ndax moom dong moo ca man dara cardinal seen Thiandoum looloo tax mu toog doon cardinal ana ba kañ ñaari fan ci weeru juin ci atum 2000 ana booba ñaata at la am ñu ne juróom-ñaar fukk juróom-ñeent mu daal di nag wàcc ngàngu naay gi ci ndam gis ngeen bi mu toogee fan fanweeri at ak juróom-ñett jiite jàngub Sénégal ana ko wuutu xanaa kilifa gu mag gi ci doxalin wu rafet wi muy monseigneur Théodore Adrien Sarr doon koo xam ne fi cardinal Thiandoum defoon def na ci kent lay kàttanam ba dara wàññiku ci mujjewul puso bi mu réer ci ay loxoom kon mbokk yi may leen ma ma waxtaanee cardinal Hyacinthe Thiandoum dana foddat sunuy kooraa ngir doomu Cees ji nan ko delloo njukkal moom doomu Popenguine bi sell ji may leen ma nopp ma wax leen ki nga xam ne jaar-jaaram dañ ko war a nettali gone yi moom yaa seen càndum mi ci fit ngor mi ci ngëm mi ci kooka mooy ki juboo woon ak kilifay diina yi kooka moo doon xaritu ñëpp ba ca Seydou Nourou Taal Thierno radiyallahu taala anhu ba ca Serigne Babacar ba ca Serigne Fallou yàlla na yàlla yokk seeni leen amul woon xejj amul woon seen kooka moo fi samp daaray jàngu ak école yi catholique yooyu doomi jullit bu la neex nga dem jàng fa kooka moo fi tegoon séddale alalu réew mi ak alalu jàngu bi ba ku sonn xiif ñu jox la ci te duñu xool xejj ak seen kooku kon moom moo dëggal li nga xam ne moom la yonent yàlla Insa yónnee ci nit ñi kooku mooy cardinal Hyacinthe candum amoon diine. ñoo jàpp ne bi mu àlla traité toogaat lu yàgg ne ci mbiri boppam ak mbiri réew mi dafa wéy di jàmmoo ak a jàmmale ba yàlla woo mu wuy ju fukki fan ak ñett atum ñaari junne ak ñeent booba mi ngi am juróom-ñett fukki at ak ñett ana lum ñu bàyyi jëmm ju rafet am na lu mu fi bàyyi way wu rafet am na lu mu fi bàyyi réew mu am jàmm jàngu boo am doole ay doomi jàngu bi yu sell looloo tax tey ku koy fàttaliku cardinal Hyacinthe candum say xel day dem ci nit ku ubbiku sa xel day dem ci kilifa gu neexoon a jot sa xel day dem ci ku maandu nitu diine looloo tax ñu koy fàttali ko tey xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane fay ci xarala gi Roland Sagna Bouye Fall Goethe Institut